nañu ci raconté benn anecdote boo xam ne nag metti la wala yokk na la jom ba na tey euh, loo def danga koy xeeb. ma gën a mën a yokk jom. Mhm. ñu euh, la benn affaire boo xam ne na dëgg yàlla. jom la ma gën na la motiver. Eh, lenn ma dem fu kawe. Mhm. lenn la je me rappelle man ak Bouba Ndour la woon. Mhm. j'en profite di ko nuyu mu doon un grand boo xamante ni xam naa ni xaw na koo fàtte. Eh, dama doon présenté wu benn jour mama tene bu Prince Art ni ma xëcaa présenté ci kanamu Bouba Ndour boobu maa ngi fréquenté xale yi seen petit gàlle yi may présenté wu am naa lu ma waxoon mais damm naa yàq juum naa ci moo bi ah, euh, juum naa ci kàllaama français bi mu ne ma booy demal nga jàngi waay xam moom il est vraiment euh, euh, moom dafa dafa dëggu mhm. lu mu gis da koy am waaye booy demal nga jàngi waay samay kanam moroma ah. mhm. y avait les enfants seen petit gàlle yi tout ma ma sëgg nag rus mhm. affaire boobu daf ma daan travailler bu ma daan toog classe di jàng damay xalaat ni Bouba Ndour li ma wax samay kanam moroom war naa ko mën a wan lenn loo xamante ni peut-être un de ces jours. xam ne kii jàng na mhm. waaw loolu loolu ça vraiment marqué. Mhm. ma ko ciy sant moom Bouba. Mhm. maa ngi ko ciy sant bu baax ndaxte euh, motivé na ma pour à que ma gën a mën a lire motivé na ma à que pour euh, ma gën a mën a bëgg jàng ba mën a am samay diplôme vraiment.